en face par place yëpp la ñuy toj place yëpp la ñuy toj mais amuñu fu ñu leen yóbbu quoi amuñu fu ñu leen yóbbu. waaw ah, mooy en face ah, si ginnaaw stade eh, ah, si côté police yaa ngi ne police yaa ngi ne fii yëpp xamul nag li ñu fi def après. Aziz lan la woon fii place la woon. waaw ah, place la ay place lan lañ fi doon def. côté lañ fi ay côté place la woon côté lañ fi doon jaay. Ah, ah. Uh-huh. mais est ce que amoon nañ autorisation tamit parce que fii xam nga fii amul sécurité soo gisee si ginnaaw fee. gaay def. waaw. wallaahi Sénégal de xam nga. fi ñu yow Mbaye boo xoolee. ñëw xam nga di liggéey. comprendre nga. fi ñu boo xoolee matériel ah, bi dañ ko loué matériel bi yëpp. matériel bi yëpp dañ ko loué dañoo jënaat suñu xaalis bi loué waat matériel bi nga xam ne moom mooy évacuer bagage. amul dara loo xam ne jox nañu ko Mbaye yow sama gayaan nga ñun liggéey nañ ba Gambie. ñun lii nii du compagnie bu ndaw. ndax yaan compagnie bu ko dégg xam ne lii nii du compagnie bu ndaw. compagnie bi moo ngi ba Gambie comprendre nga mais mënuñ nag investir xaalis même pas pour li fi li ñu fi def ñu mënuñu ko compter comprendre nga ñun ba ñu fee jug mais jugin bi na rafet gi nga lépp loo gis àdduna waxtaan la comprendre nga tey gi nga ngay ngay def lu mel nii borom waxul comprendre nga réagir nga xam ne kon kii alalu àdduna sonalu ko est que yaa ngi dégg loolu ëpp importance quoi comprendre nga ñi ñëpp fi lañ doon liggéey aji sëñ bi ñu fekk la fi ah. euh, dañoo nangu seeni place nan lañ ko nangoo si ban contexte ah xanaa am doole dikk fekk ñuy gor yu liggéey toog jàpp seen jàmbur. Uh-huh. ay citoyens yoo xam ne ñu ngi contribuer ci développement dëkk bi. ñu fekk fi ñu doon liggéey jëlee leen fa tas leen boo xoolee gis nga machine yi. ñu ngi toog nekk toog gis ñu gis nga leen. ah mais avertir woon nañ leen quoi ne leen jóge leen. deux jours trois. deux jours trois deux yoo xam ne ay 2000 personnes ñoo fa nekk. xam nga uh-huh. mënuñu faa jëlee dara. gis nga oto yi ci tali bi ñu taxaw. waaw bu dee

loolu rek lañ mën a wax te duñu xeex duñu xuloo duñu boo xeexee ñoom for li ñu naan force reste à la loi ñoo la ëpp doole dañ lay toroxal duñ ci fekk léegi jox nañ leen feneen wala joxuñu joxuñu ñu dara looloo tax suñu taxawaay bi pour ñu bëgg benn site de recasement fu ñu mën a dem mais amuñu joxuñu ñu dara fay ñu ñu dédommagé wuñu bàyyi ñu fii problème bi añ ak ndëkk sax gars yi dañ koy am nga xam ne fii la seen lépp fii la nekkoon nga boo xoolee ñu sa yaram war naa daw sax waaw dara nekk dara am fi dara amul fii daal mi ngi nii metti na lool. fi nekk ak weer yi ngeen fay ak lépp est-ce que mën naa kaa gis si ay kayit. lépp danaa la ko mën waaw. lépp bala nga fa jógee mën na ko lépp. lépp laa lay wan lépp. Eh, xool lii xoolal lii xoolal lii. dañoo ñëw ko quoi dañoo ñëw rek tas ko. ñëw ñu leen jóg leen. waaw ci cinq jours. waaw. te ay millions fi nekkoon. waaye li fi nekk ëpp na loolu investissement bi rek ëpp na 60 investissement plus cent millions bëgg dee moo njaay la fi li ñu fàccee ñetti conteneur vaisselle vaisselle meuble yi jour mooy tey trois conteneur meuble mhm. léegi nit kuy def yooyu di góor góor ci sën mhm. nga xëy ni ko jógal mhm. ah man na nga xam ban Sénégal lañ nekk. ban réew lañ nekk. léegi policiers yi ñëw ne ne ne jug leen xam ba est-ce que est-ce que ah, waxoon ngeen. non mais mais est-ce que. am na daal yabal nañ seen i ndaw ñëw nañ ko ma kan la. waaw yabal nañ seen i ndaw boobu ngi nii yaa jëf waay naa aussi mënoo maa génne contrat yi nga wax waa nañ dem nga xoolal ma contrat yi ñu xool ndax waaw nii la parce que nee nañ doomu sénégalais nee nañ doomu sénégalais fi nekkoon investir fi ay million ñëw ne leen si cinq jours yi lañ leen ne jóge fi tas ko ne ay naar dañ koy jox waaw. waaw dafa mel ne kii salaamaaleykum sang nii nañ la. ah yow yaa moomoon afi terrain bi yow yaa ko moom da nga ko jëndoon wala. Ah, ah mairie moo la ko joxoon nan la la ko joxee.

yëkkati bi mhm. naqari wu ñëw mhm. mode di yëkkati bi moo ñu naqari mhm. ndax su fekkee ni dañuy doomu sénégalais jóge Europe ñëw Sénégal di liggéey jël ay doomu sénégalais ñu nekk fi di liggéey kon bu ñuy wax ne jóg leen war nañu ko mën a prévenir lu yàgg doog ñuy mën a wax jóg leen mais man bi ñu fiy ñëw ne jóg leen fekk dama dem voyage bi ma ñëwee délai cinq jours lañ ma jox. Mhm. ci koo xam ne jël na peine def fi. Mhm. jël ay matériel def fi jël ay matériel luuram def fi. Mhm. jël alalam ñàkk ko fi. kon boo koy yëkkati. dafa am modd boo xam ne fa nga war a jaar pour yëkkati ko. mais am na loo xam ne. kenn xam lu mu doon. est-ce que yaa ngi doon fay patente yaa ngi doon fay. mairie doon fay mhm. li nga xamante ji moom laa war a fay état. Mhm. mooy mairie bi moo ma dofeloon contrat ma nekk fi. Mhm. ak mu jot dama doon fay mairie. lépp mu ngi ak man. bi ma demee présenté naa ko. bi ñu ma nee yaa ngi si titre jàmbur. est-ce que mën nañ mën nga ma génneel kayit yi. parce que waaw ok actuellement nii daf ma sori. mais lépp mi ngi ak man. biñ ma nee it yaa ngi si titre jàmbur. Mhm. dem naa justifier leen war na leen nekk ma si titre jàmbur. Mhm. fi ma nekk en prise la. mais nag defoon naa demande bàyyi. Mhm. mu nekk en cours. loolu répondre guñ ma. ñu xëy xëy ne dans cinq jours dañ fiy jóge. jóge bi méttiwu ma. mais mode jóge bi moo métti. ndax dañ ne ma da ngeen fiy jóge ndax état bu Sénégal moo ko fayee ay naar. ay naar ay naar benn naar boo xam ne état bu senegal moo ko yore suuf fayee war ko ko fayee mhm. loolu lañ ma wax nee nañ état Sénégal kon man moo ko fay ay naar ah kon mënumaa gëm ñu jëlee ci sénégalais mhm. fokkati ci loxo sénégalais mhm. jox naar wax dëgg yàlla loolu lëndëm la sama bopp lëndëm la sama bopp ok ah léegi su ma juumul euh, euh, waxu waxi euh, gars yi nekk fee bitim réew day ñëw dañ ne état Sénégal dañoo bëgg pour investir mais état Sénégal yombalu leen ko est-ce que du loolu laa loolu lu wér la man ak ku mel ne man tey li ma dal mhm. bu ko sama beneen morom boo xam ne immigré la woon bu ko gisee mhm. xelam dootul dal dootul dal pour mu retourner mhm. amul benn nit boo xam ne mi ngi immigré te xelam nekkul ne mi ngi bëgg retourner waat Sénégal pour toog réewum liggéey mais yombaluñ ñu ko lan mooy yombaluñ ñu ko tey oto wala camion kenn du ko dugal ci kër di ko jaay. Mhm. état moo lay jàppale nga teg ko foo ko war a mun a jaayee. Mhm. pour jaay. Mhm. mais su fekkee ne fépp fu ñu la teg. après buñ la fa teggee. jàmbur lañ fay teg. wa ilaa tey imagine tey man waxatuma sax sama bopp. mais xoolal mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ jilee fii ci pàkk suuf bi. ay doomu aadama lañu yoo xam ne ji dañoo war a dund. te duñ lekk ngooñ. ay doomu aadama dañoo war a dund. ok léegi ñoom ñu noonu tey ëllëg. est-ce que état bi warna xam ñooñu lolu ëllëg lu ñuy dundee man Europe la nek bu wër ma masaan jot ligéyul dañ danañ yëkkati dara jox la ko pour nga dundé ko. Ah. parce que état bi ñu lay calculer. mais est-ce que état tamit yëg na est-ce que def nga ay say ci yo xamantene dañ leena yoni parce que euh, euh, la fois passée ay mécaniciens yi nekkoon fële euh, Sacré-Cœur noonu lañ leen doon def mais dañoo dëgërlu ndekete ay sambabu yu fa ñëwoon la est-ce que am na lu la leer. non man duma ma dëgërloo état. Ah, est-ce que état la tamit. ndax xaw ma li man fii sama doole yem pour ma pour ma dem def ay information def ay investigation dem naa mhm. bi ñamaa da toog suufu jàmbur mhm. dem naa cadastre mhm. justifier leen na nekk ma ci suufu jàmbur titre foncier jàmbur li ma toog état ko moom wane naa ko justifier naa ko foofu la sama doole yem la ca des nag ñoom ñi am kàttan ñoom ñooy defee nu mu leen soobee man xëy na oom kàttanu bras de ak ñoom waaye nag am na loo xam ne état war na koy mun a sóor ci ay doomam. ah est-ce yow nga xam ni homme d'affaires nga am nga foo toll jamono ji est-ce que yëkkati nga sa téléphone dem gisanteeg ministre da ministre bi walla. non defuma ko. waaw est-ce que est-ce loolu jaru ko woon. xëy na ñoom ñi nga xam ne. Mhm. ay homme d'affaires lañ yoo xam ne naxante day am ci seen i biir. Mhm. xëy na mun nañ faa joti. waaye su fekkee immigré bi nga xam ne liggéey ak daan dooneem mag ñaq kese la xam xëy na jotewu fa Sénégal nag dafa nekk ni xëy na boo amul nijaay yi amoo koo xam ne ne nañu wooy ay branlon la lu leen soob dinañ ko def waaye ñun li ñu war a def danañ ko def danañ liggéey jaamu yàlla lépp lu nit def te la ngay def seetoo ci yàlla loolu yow la ah léegi fi mu nekk nii ah, euh, euh, waxo euh, joxoo joxoo benn seetu ne wutal leen ma feneen waxoo leen ko waxoo leen ko waxoo leen ko. ñoom proposé wuñ la ko. non parce que du ma jooytu. mais il faut tamit nga nga no parce que. wax leen ne comme si fii la yëkkati ngeen ma fii dem leen wutal leen ma feneen. waaw ñoom ñi ñuy yëkkati. waaw xam nañ ne ay doomu aadama ñoo fiy dund. Mhm. place bii ma nekk. Mhm. di fi liggéey tey. Mhm. lu mat quarante personnes ñu fi di dund. di am lu ñuy jël di ko yóbbu seen njaboot. man waxuma sama bopp. waaye ñi fi doon dund tey. chaque weer ñu am lu ñu yóbbu seen njaboot. ëllëg lan la ñuy dundee. man ñooñu laa gën a mun a xalaat sax ci gën sama bopp kon état kooku man maay xalaat ñeneen saakatuma ak état nga xam ne ñun ñëpp moo ñu bokk gouverner kon rafetul di jëlee ci sénégalais ci jox étranger te loolu laa fi gis te damaa gis nii ok ñu ñu ñu tukki saa su ne bu ñu demee Europe ñu ngi jàppee ne yéen dëkku leen fii te bu ñu ñëwee ànd ak ay étranger étranger yi gën ñu fi ëpp doole pour lan bo tukkee ñu jàppee la dëkkoo fi nga méré deku jambour ñëw tok sa réew pour liggéey ñu bëgg la yow ñu teg la lo xamné ji doto sax bëgg tok Sénégal kon ñi nga xamné ji dañuy mer fipu jël gal wala leneen ak leneen mais kon état bi mo leen pousser ci lolu tay doom adam yi nga xamné tay tey fi fii buñu jëlé gal kan mo leen wara wax tay lutax ngeen di jëli gal xam nga ñaata doomu aadama moo génn fii ñooñu war nañ leen mu xalat Vous buñ fa Vous Vous xëy Vous la responsabilité Vous jëlee nit mu kat vous ñi maa leen fiy Vous waaye ay leen après fan laa leen Vous après ah vous fële vous yow ya ah, ah, fële. waaw côté bi yëpp. ma la ko maire bi joxoon. noo tudd. man Makhtar Sylla la. Makhtar Sylla. Makhtar Sylla la la tudd. Ah, ah ci sa employé la bokk. ah, ah, ah. Euh, kay premier kayit bi mu ñëwee est-ce que est yow lañ ko jox. premier premier dañ maa fekk ma dem voyage. waaw lañ ko jox. sama secrétaire lañ ko jox. Mhm. bi ma ñëwee lañ ma lañ ma doog a ne ma kayit bi. lan moo tax bi nga jotee kayit boobu woote woo si si. damaa dem. parce que biñ ma waxee ne ma suuf jàpp nga toog. Mhm. loolu noonu cadastre moo ko justifié. Mhm. dem naa ba si ñoom wan leen ne leen ni kat tooguma ci suufu jàmbur. Mhm. ndax woon naa benn géomètre boo xam ne bu agréé la. mu xoolal ma loolu. maa ngi plan cadastral yi nga xam ne ji mooy justifié ne tooguma ci suufu jàmbur. loolu lépp présenté naa ko kayit yi nga xam ne moom laa dugalee woon bàyyi présenté naa ko kon xëy na dañoo def leen neex dañoo def leen sax waaye nag ñun ñu ngi dem ànd ak yàlla. waaw ah salaamaaleykum yow yaa am si emploi bi man. chef ah, de garage. léegi affaire nu mu dikkee. bon affaire bi mu dikkee nii la lañ yoo xam ne. ñun nekk suñu ruq di liggéey. Mm-hmm. Euh, di nuyu sax Sénégal yëpp. Mm-hmm. di leen wax ñu ngi bokk ñoom fii si rek naqare parce que lii ku mu dal tey dina dal keneen suba. Mm-hmm. tey peut-être ñun la daal mais suba dina nekk dina law ci keneen. kon c'est très ñu wax. ci li nga xam ne mooy xew ñun dañoo dañoo jógee sunu dëkk yi ñëw ñëw Dakar agressé wuñu sàcc ñu fenuñu yor sunuy gone di liggéey ak ñoom fii bi ñu fi nekk dara nekku fi kàmb kàmb la woon àll la woon ñu nekk fi di defar di defar mooy ni olof njaay di naan lépp lu sotti am borom ñu nekk fi di defar imaginel nit boo xam ne nii mu ñëw dem liggéey nekk en étranger liggéey ba waaw maam dem en étranger daan dooleem liggéey ba yàlla suturaal ko ci dara ah. ba yàlla suturaal ko ci dara mu ñëw waroon na mun a jël xaalisam def ko ci kont di juddu na njabootam mu ne déedéet du ma def loolu damay ànd ak jeune Sénégal liggéey ak ñoom pour ñoom ñu am dara man lu mu gàtt gàtt yor naa lu ma tees apprenti xam maa leen maa leen jàngal métier am na ñoo xam ne leen ci léegi tey bu ñu ñëwee jëlee ñu fii nii jëlaat ko joxaat joxaat ko keneen léegi ñun lu ñuy def ñu ñu dem bon ñu toog ak sunu njaboot duñ am lu ñu lekk li Thione Seck doon wax ah, naan Thione Seck li doon wax naan juddoo ci réew màggee ci réew amoo fa baat amoo fa yoon suba su ne ñu ñu fuddi la daf la yaramu neen ci say kanam ci say kanamu doom bu yàggee di nga jéngu loolu moo xew nii li Thione Seck doon wax li moo xew parce que xëy ñëw fekk nit ak ay employé am ñuy daan doole nga ne leen jóg leen fii nii par force ñu jóg amuñ fu ñu jëm ñu ngi ni suñu bagage yaa nii depuis trois jours lekk ñu naanuñu ñu ngi ci di daw léegi Sénégal ban Sénégal la wala ñu jël suñu bagage ñu dellu ñu dem Gambie nek fofu noonu. Ah. Sénégal metti na. ñu ne ñu né ñu ne dañ né ñu né dañ leen né ay gam ay ay nar lañ koy jox est-ce que lolu c'est confirmé. non ñun mënuñu wax né kii lañ ko jox wala kee lañ koy jox. Mm-hmm. ñun liñu liñu li ñu li ñu dañ ñoo yëkkati yow ki la yëkkati jox la jox jox la jox la dara dara lo xamni tay dañ tey da fa yëkkati bagage ñun xamuñ nag ki lañ ko jox wala ké lañ ko jox mais en tout cas jëlee nañ ñu fi. Mm-hmm. Ah. jëlee jëlee seen discours ñan ñoo leen fi jëlee ñan non des ko su moo ñëw nañu da ngeen ne da ngeen da fi la wala kële la non non mais tamit loolu est-ce que est-ce que wóor na tamit dañ leen a waroon a wóor ay ay këyit ay tey li nga xam ne nii loolu Sénégal war a taxaw mooy nit ku ne da nga ko war a xamal yu droit am te yaakaar naa boo ñëwee ci place nga fekk nga fekk place bi dem ni nii nit investir ba nga kaa au réunion mu toog nga toog ngeen waxtaanee nga ne ah fii kat état doo ko soxla wala diw sangam moo ko soxla dañ jël beneen paas ñu jox la ko buñ la ko joxee nga dem foofu noonu nga investir wala ñu dimbale ci dara mais amul ci dara lu ñu dimbale ñun depuis trois jours ñun lekku ñun naanu ñu abi ñoo jaar suñu xaalis vekkoon suñu bagage bu di waat feneen yow état constat à zéro ñoom proposé wul leen feneen amu fu ñu proposé li ñuy wax mooy daal fii daal da ngeen fi jóg ñu la demee waaw ñu koy ñaan nañ ba sonn mënuñ ci dara suñu bagage loolu lañ ko tasee yaa def kon nii la nii la gis nga police yaa ngi ne Kıvırmalı.